c'est toi, c'est toi, c'est toi, lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiñ yëguloo fekke woo rek si single bi singal buy toj instant

sans ñoom jarul ñuy liggéey. ñooñu dooleel xébu ñuñu mhm. vraiment kontaan na ci jappelé gi ñuy jàppale ci euh, sunu carrière. jappelé gi ñuy jàppale ci sunu liggéey bi yépp vraiment kontaan na trop ci ñom mais featuring bi tay ñu gis ni nga def ci ñetti nit. nga mhm. bolé ci ñaani nit. Mhm. pourquoi choix wu Alioune Mbaye Nder. expérience ba. ok Nder euh, Nder ñu bari xamuñu ko waaw mu tax nga talent ndeer affaire la hmm? professionnalisme ndeer expérience su ndeer leneen la ndeer est tellement professionnel suñu waree def ben affaire c'est-à-dire que avant l'heure ndeer est là-bas lu muy sol lu muy na waaw xam nga lolu expérience moo koy moo koy moo koy mhm. mu def participation bu muccu ayib ci ci morceau bi bu ñëpp di rafetlu mhm. njole ñew moom xam nga ko moom mooy xorom ci cin. waaw ñëw bombardé foofu moom tamit. Uh-huh. defar ba mu baax. donc succès morceau bi ñoom la. Uh-huh. ndax ñoom ñoo ko taaral ba mu taaru donc euh, encore une fois rek doo lay jën ndox. Uh-huh. Euh, euh, musique bu yeetewul naxaate la. comme ni ñu ah, koy wax ñu gis ni nga def ci ay parodies yu riche. am na ay conseils yi fan la malgré xam nañ ni que nag seen famille bu ñuy woy dañuy woy loo xam ne <laughs> boo koy déglu dina la. dina tax tey même boo nekkee ci lu bon di nga gindeeku. Mhm. taxi yi. waa xam nga loolu man maanaam ñun ay porteurs de voix lañ. ok ay porteurs de voix lañ. Mhm. war nañ saa suñu yëkkatee kàddu mu am njëriñ ci askan wi. normalement ndaxte ñun lu ñu am askan wi ñoo ñu ko jox. dëgg la kon ñun lu ñuy def rek ñoom lañ ko war a delloo. Mhm. ba tax na euh, il faut que ñu bàyyi xel ci société bi. si taxi bi tamit yi. loolu dafa am solo ndax loolu gis nga bu fessé ku dëng sa benn way nga ne ah, est-ce que du man lay waxal. Mhm. def nga ne du def nga teggi loxo. nga sunu cër la faaw ñu gën di ko gën parce que sunu sunu sunu culture culturellement ce qu'on a. Mhm. au Sénégal. jafe na nga gis ko ci réew. muy ban côté ban yëpp. ok bi ci jiitu man sama lépp samay référence yi rek laay waxee mooy bi ci jiitu mooy euh, mag ñu baax ñi fi ne. ñi fi të tëdd. Mhm. ñi fi yàlla teg. Mhm. amul ci benn réew ci àdduna. dëgg la yàlla Sénégal rek la baaxal lool. Mhm. waaw loolu nag chance la. chance la moom duñu ko duñu ko naxasal. dëgg la nañ ko gëm. xamna ni ñep gëm nañ ko waye nañ ko gëna insister. Mhm. ndax moo ñuy jëmale ci kanam moy stabilité réew mi mooy base réew mi mooy socle bi manam ok moy socle bi. ok mhm. nga réer ñëw nekkaat actualité. Mhm. secret la wala liggéey la wala lal au fait euh, man d'habitude sumay sumay def ben affaire da fay jël touti temps. ok parce que du musique kese laay def aussi. ok damay def euh, business woman la. damay def. yeneen ni business yoo xamante ni aussi xam nga ak fi réew mi toll. Mhm. faaw ñuy def lu ne pour lu jub. mu mën cee pour mën cee génn ndax borom yi njaboot lañu te mënuñu def lu dul liggéey. donc loolu dafay permettre man temps bu may jël pause ma daw def leneen ci sama yeneen societé wala ci sama beneen métier. ma def ko ba mu kii ma dawaat mhm. ñëw parce que looloo fi ne. xam nga ginnaaw liggéey ci jaamu yàlla la la la la nekk. ñun dañuy dañuy dañuy sax. Mhm. ci mhm. euh, single sais xamné vraiment mhm. est-ce que single bi un album album. single bi déjà pour décembre bi. lan single bi déjà pour décembre mais album da ah, un album bi top. album Parana. album bi ñaata titre normalement ñi ngi won sept titres. pare na de ma nga ca studio ba tege mais dadi xam nga mhm. lu jot rek day yomb. la bu jotee dafay yomb boo seetloo single yi ma fi jot a génne yëpp ci album bi la bokk. mooy génne naa nii laay sante. Mhm. génne na dara matul. Mhm. génne naa wayu Ousmane Tanor Dieng bi génne naa seetoo seet donc kat singal génne naa ko. léegi des na 3 yi non non ta te il faut ñu dabali yokkaat yeneen yu bees. looy wax ni waaw ah mënut a <laughs> sa loxo mu ngi si soos yena yena sama loxo ngi ci ci bir sos ba. <laughs> tay si album bobu non mm. dinañ xaar rendre hommage suñu papa chon ah, mu nek suñu papa yow mom mënu ñu wax papa chon te duñu wax abi. dedet xam nga lolu moy and euh, na wér. deug la na sincère bëgg. na wér. xam nga tey jii Thione Seck kenn mënu koo tudd te du ma tudd. bi Thione Seck làkkoo famem ñi mu bokkal ndey baay man la ñuy woo di ma jaale. waaw. Hmm? xam nga kon loolu lu lu lu foor la yuusu sama grand frère daf ma woo di ma jaale Thione kon loolu mbëggeel bu wóor la. Hmm. ci sama diggante ak moom. Hmm. te nit la koo xam ne. ndeysaan taxawaayam dafa amoon solo ci réew mi xam nga doomu aadama kenn mënu koo néewal doole da ku nekk gis nga sa sa sa sa sa destin ci àdduna mhm. di nga ko dox ak manquement ak lu mu ci doon noonu la yàlla moo lay tracelee noonu parce que kenn moo fi mën a jox doole nit kenn moo fi mën a dooleel doole nit mooy ki ñu sàkk waaw non mais côté bu may waxee mooy mhm. ñun duñu xam qualité nit Mm-hmm. wala dañuy xam ne kii mën na lu muy def et ñu jàppale ko si mais dañuy bàyyi ba mu làq ku ne di wax comme yàlla comme euh, balaa ñuy def rek fekk c'est trop tard c'est trop yàlla baax na yàlla nañu yàlla may euh, lucidité wu ñu ràññee nit ñi jox leen seeni i gëdd mm-hmm. loolu moom moo ëpp solo ndax gis nga cër pour ma jox la ko il foog ma xam lan mooy cër